yàq yow waxkat nga damaa war a wax man dañ may fay pour may wax yow mënoo maa teree wax yow lan la yow ndaama man ragalu ma la de ndaama foo ko fekk dafay bëri solo amul yooyu bilaay ndaama bu mel ni Babacar nappe bi yow Babacar lan la xamoo li mu doon Babacar wax rek lay def li mu doon damaa war a wax macha allah bu may wax ngay dóor dóor kat bu mag nga may wax kat lan la yow ñu def yow xam nga bëggoon naa la fay dóor dinaa la jàmm ak salaam Babacar. macha allah waaw merci. nga mel. Babacar man naa mel tey li nga balaa. waaw merci xam nga li nga takk ci waaru. non sama waay nga. waaye lu la yàq léeg-léeg. li ngay moo la yàq léeg-léeg. léeg-léeg xam nga yaa ma gën a xam man xam nga rek boo suyee. sama waay nga sama doomu ndey nga sama xarit nga. boo boo boo defee glace ma def glace. voilà indee nokko ma def ci Dakar. man waxuma anniversaire balaa ma ciy ñëw ni mel nii moo doy waar. sama rakk moo xel da nga façon. waaw nga fu ma su ma génnee ci balaasër nga doon ma yi eh, masa ma jëmp nga ne noonu Babacar ñaanal ma yàlla fal ma cat waaye yow kenn mënu laa catu dañ laa semmal waaw yow ku la sañ a catu waaw loolu dëgg la xoolal ni nga mel eh, loola xamal loolu non man itam ak ab kaw kaw la doo ngaa ka de kaw ga laa jóge boole koog Ndakaaru ñaari ndox laa sangu dégg naa a allah yàlla na yàlla musal cat at làmmiñ yàlla nañ ci yàlla moo xel nan wax lim fii nii anniversaire waaw mais dinañ ci wax mhm. mais mhm. liiru lii ku ko def Modou Mbacke Bakhye Couture moo ñëw ñëw bi. sa waaju ca Géejawaay. waaw Modou Mbacke Bakhye Couture moo jaar fii waaye euh, mu mu mu Ndiaye sama ménageur ba nekk Amérique. mu Ndiaye borom États-Unis. voilà mu mu mu mu Ndiaye. mu Ndiaye waaw mu Ndiaye ba ca États-Unis mu jabar ji Madeleine moo ma jox lii ni ma liiru defal lii ma def ko Modou Mbacke jaar fi mu Ndiaye Serigne Madeleine du nuyu sama rakk ji Afia ak Mor Ndiaye ak Baye Fall bu mag ba muy Mafal. ah sama waaja ah, ah, Maadou Sow promoteur mag ba Maadou Sow mais sa digganteeg Omar. su may wax ci moom damay feer. yaa waxati lii. waa barki Rasulullah sama rakk la sama xarit la. ndeysaan ah taalibu sëñ Basirou Baara sëñ Saliou. sama rakk la la barki Serigne Fallou Mbacke. seen jege ñi daa mel ni amul pertement de. déedéet ban pertement nu mu amee perte sama rakk maa ko yar maa ko yar man ñoom ñëpp samay rakk maa ko yar. waaye moom nga gën a jege. waaw samay rakk la ñoom ñëpp samay rakk la. Balla Gaye Lac de Guiers 2 muy anniversaire am tey. waaw yàgg koo fête tey xañ na fête bi dafa gën a fës waaye nag Babacar maa xool benn affaire. waxal bu dëkkul génne waay soo ñëwee doo dugg. mais yaa moom fii nag. ah ñoo ñëw ci wel demal nga ma. non combat bi dama koo jël am mais te dafa am ñoo xam damay bañ ñu rax dëkkul géej waay. du su ñëwee mais da ngaa moom fii nag. waaw dama lay sori ndax dégg naa am na ñoo xam ni dégg naa for naa ci weewu nag ñoo ngi ñëw. fu ñu jógee xaw ko dama ko for ci weewu nag. waa Mbuur la wala waa. xaw ma fu mu ta doon daal waaye ku dëkkul Guédiawaye su ñëwee du fi dugg man maa la wax léegi. Bombardier de am na lu ma wax. Bombardier lu mu la wax dégg naa ko ñu naan man man maay saraxu combat bi. Tito. non Tito sarax bi mu la wax man Babacar. Babacar. su ma tiitee ragal yàlla la ndax Babacar su ma la waxee benn affaire Babacar. Babacar. <laughs> Oh. Babacar Babacar damaa jaar fu metti ànd ak ay nit ñu ñàkk seen bakkan ku ci mel père Aline Sey père a Seck Cheikh Mbeng Cheikh Sey Madoune Diouf mi fekke na ko kon nag su ba Bombardier taxaw naan ma sara maay sarax combat bi man ragaluma loolu man tey dafa lu ma yàlla lu tax mu bàyyi ma fi ñoom dafa lu yàlla lu tax mu yóbbu leen kon nag su waxee man maay sarax combat bi juum na Bombardier daa juum juum na warta war a wax man maay sarax combat bi ah. waaw dafa juum warta woon wax loolu man ragaluma loolu man xolal dee benn yoon la du ñaari yoon. te combat bi yow bañoo ci dara kon su a la déggee. Sëriñ Fallou Mbacke bañ ma sama rak Balla Gaye 2 c'est mon lu mu nekk ma nekk ca. mais ak Bombardier waaye yow waaye yow dimbali ma nga wax Bombardier man sama ntu Bombardier man daal lijjanti Bombardier Bombardier mooy kan. mais da ngeen a bëre mu daan leen. waaw ba boobu yàlla na fi yàlla baa jàmm ba bis ba. da ngeen di fayu. incha allah rabbi su sooba yàlla di ngeen ko daan yàlla na yàlla may wér at fekke at tal. mbuur la mbuur la boot. waaye xoolal dimbali ma bootul mbuur moom m Balla Gaye moo ko ëpp mbuur waaye li ngay wax sëriñ Saliou Mbacke Balla Gaye Bombardier suy bëreeg Balla Gaye euh, ba muy bëreeg Balla Gaye ñaari kaar la fi ngay wax lan moo am Bombardier nekk roi des arènes ñaari yoon yow ban roi des ba mu nekkee roi des arènes loo gis muy publicité lan la lan la fi doon publicité wax ma ko mu tàdd yow da ngay lekk mu tàdd mu tàdd waaw mu tàdd doo ma lekk mu tàdd lekk mu tàdd non yaa wax lii waaw gis nga ban yàlla na fi yàlla ah coowa ngongu xaadim njaay ñëw na te nañ noon ku dëkkut géej kul géej way doo fi dugg tëj na buntu bi de madun madun bunt bi daal tëju liiru jaan tëj na kër gi madun Lamine Samba ubbil ma liiru tëj na kër gi nee na man cook sooru gaal la cook sooru dama bëgg mu leer ci anniversaire bi tey mais yow itam noo mën a joge caaro yi ñëw ci anniversaire bi lu ko waral waa Balla Gaye moo ko waral ndax dañoo bokk Serigne Touba te mënuñu ko séddoo affaire lamb leneen la mais dañoo bokk Serigne Touba te mënuñu koo séddoo mu yëgal ma ko ak lépp lu mu xet xet ak lépp lu ma jàpp dinaa ko bàyyi ñëw. lii rongee di ñëw de xaadim. man damay dugg. lii rongee ñëw de. nga ne nga ne loolu daal tax nga wax loolu. non dafa dul dugg. yow yaa kër gi. fi du fi dugg laa la. kii day xeex de bëre ngeen de. xool du fi dugg laa la. déet déet déet liiru. liiru déet. liiru déet du fi dugg laa la man maa wax loolu. déet liiru su ma nee du fi dugg du fi dugg. nga wax loolu dul dugg. mais yaa moom kër gi du fi dugg mais kii jóge ba caaro du fi dugg waaye nag xoolal ay nag yaa ay waaw du fi dugg laa wax ni man maa wax ni du ah. na jóge ci dama koy jax dama koy jaxase de ah, dama lay jaxase de barki Serigne Touba Mbacké dama lay jaxasal eh, eh, eh, jaxasama may ma ma dugg laa la wax dugg laa la wax doo dugg laa wax doo dugg laa la wax non non wuy ma xam nga dafa dafa am lu ko naqari waaw lu ko naqari waaw waxal lu ko naqari waxal. xam nga liiru. waaw yéen ñëpp dégg ngeen mu ne dañ ko sàcc. Euh, sàcc ga waane na fi dañ fee jël trois cent mille ak i portable am de. dama bëgg nag tey àdduna ngeen déglu ma ma leeral ko. moom mi ngi nii dama xool ci bët. may mun a jaawaral a may téléphone bi. kuy Maimouna Diawara. Maimouna Diawara université lay jànge. Eh, amee di jante la. déet damaa bëgg nga taxaw taxawal fii bul daw. yaa ngi dégg tablette bi mu wax ni da ko dafa réer tamit tablette bi rek ku Maimouna Diawara la ko may. Mounass Diawara. waaw déglu ma rek bul bul do do ruube leeru. kan mooy Maimouna Diawara ruube. waxal xaadim. yow xamoon nga ni lii gëmoon naa ni gëmoon naa ni Serigne Touba Serigne Touba dinañu dajale léegi nag a Diawara moomu. trois cent mille yi yaayam armoilam dafa amoon problème mën naa la yóbbu ci ministre bi mu jox trois cent mille yi mu defaraat retaay bi kan mooy may mën a jaawara waaw dama ne la kan mooy mën a jaawara yow laa wax kan mooy may mën a jaawara kan mooy may mën a jaawara wax ma ko ak sama kan mooy may mën a jaawara kan mooy mën xool booy non non du fi dugg laa wax de na Balla Gaye ñëw Balla Gaye ñëw non fi dugg laa wax léegi man bu ma tilimal gees neer la waaye mën naa sol jëg yow solu yàgg ma lii dama ko tey laa ko sañ de xam nga man dama yërëm Balla ma bàyyi leen moom li tax mu fonk téyeer yi Balla Gaye xam nga ni yëre yi kii jotu yëre yi Balla Gaye rek moo tax mu xaritoog téyeer yëpp ay téyeer rek lay gërëm moom xam na ko mi ngi ñu toog kan may may mën a jaaw xamoo kan may bi ngay wër naan dañ lay sàcc da ngay bu dand bi masque kenn du ko sol ay heure da koy tikki ay minute la masque docteur yee ko santaane liiru na ko changé na ko changé na changé masque am changé ko te yow a ngi sans poche te yow sama masque ni sans poche war ngaa sant Balla Gaye bu baax yow man du ma la la xam nga war na war na Thierno Thierno doo wax ci lii Thierno nooy atté lii Thierno dugg ci Thierno yoonam ne Thierno dugg ci yoonam ne mais kan ma mën a jaawara xaw ma kuy may mën a jaaw na a mais liiru am nga soxna bu baax da am leneen ci suuf xoolal rek fekk dama am leen suuf wax di ma ko wax de kii day wax lu ko neex nañu dimbali moom kooku sooru gaal la dem géej ñiy dem ci bateau yi dem ci bateau moom mooy li jënd client yi barça barsax moom mooy li jënd client yi ak de mooy li jënd client yi réew mi am na yoon moom mooy li jënd client yi ñaari borom alal ñoo ma seq oh, oh. maître ak Mbaye Sarr ak Pape Mayel Diop man eh, barki eh, Serigne Saliou Mbacké bari na maître Ndiaye ba sama avocat bu mag bi maître Ndiaye maître maître maître El Hadj Diouf ak maître Ndiaye ba ko eh, ay maître El Hadj Diouf ay kàpp ah, euh, bi ah, Maadou Sow eh, Maadou Sow eh, xam na ko. Thierno eh. Lo Thierno Lo bi ma amee problème kan moo ko doon plaidé. Dieye Sène Dieye Sène Thierno Lo mu am problème. ko jàpp kan moo ko doon jàppale du métti. waxal sa digganteeg yàlla bul soxor nag. Dieye Sène kàppam mag boobu waaw du dugg du dugg. moo bàyyil ma dugg lii la ñuy kool madun Diouf madun fii du arène nationale xaadim fii du arène ba woo leen Balla Gaye li ci des li ci des may ko mooy dama bëgg mu leer waaw ñaan naa la waaw la mës a ñaan defal nga ma ko liiru ñaan naa la nga bàyyi ko mu dugg wuyul madun Diouf madun nee na ñaan na la madun booga ana Balla wool Balla nee na xaadim du dugg wool Balla wool Balla dafa dugg fii ku dëkkul géej dafa dugg man maa ko wax maris la de ñu géej waay fii maris la ah man maa ko wax du fi dëkk du fi dugg du fi dugg eh gars yi may leen ma nag déet eh, déet eh, eh, dama lay escanté dama lay jur ma ah